loolu moo fa am loolu leer na. man Birame pour terminer euh, parce que waxtu wi dab nañu euh, sur l' affaire euh, Déthié Fall wax nga ci lu lu lu bari mm. mais li li mu wax sànq moom sama xarit bi mooy li ko étonné mooy Déthié Fall ni ko nit ñi xamee mu xam ne list bi c' est de d' opposition mu bokk ci tout en sachant que il ne peut pas s' opposer waaw jàpp naa ne foofu la erreur bi situé wu. puisque Yatma mu ngi koy fàttali euh, sànq que Déthié Fall à plusieurs reprises ñëw nañu baare euh, siège am. ne ko. am na ay temps que gendarmerie ñoo waroon di fay location parce que ñoo fa nekkoon. te pourtant mosoo dégg ñu ne Déthié Fall moomu. jàppante na ak gendarme yi forcé pour dugg ci siège am. ci <laughs> man faire quoi ci man benn. non ma damay rek <laughs> donc xam nga xam nga Déthié Fall moom moo gënoon na yey ci siège boo xamante ni moom mooy fay location bi. pour buuxante ak gendarme yi. dugg ne day dugg ci siège pour pourtant il ne l'a pas am na maa bi dogguma la bi ko bi ko bi ñu ko bi ñu ko arrêté Déthié Fall dañ ko arrêté buntu siège <laughs> yóbbu ko ba gendarmerie Foire léegi bi ñu ko yóbbu fii eh, xaw ma so section de réserve xaw ma hmm, léegi gendarme ils ont fait exprès jaaralaat ko ci buntu permanence <laughs> <laughs> pour mu seen ko avant muy dem def dix jours te te forcé wul pour wàcc ah. très bien mais également au delà de seetlu boobu dañu gis ne ci adversité bi nga xamante ne nii Macky Sall ak opposition bi amoon nañu ko. kenn mosul dégg Déthié Fall mu yëkkati ay kàddu yu jëm ci saaga. donc suñ tournée ñu gis ko mu nekk ci coalition boo xamante ne nii à un moment sax man kàddu saaga laa leen tuddee tellement que ay saaga rek la ñuy def ça pose problème. soo ko gisee également mu nekk ci coalition boo xamante ni kenn ci ñoom di responsable day dem di force barrage yu gendarmerie mën nga wax ne kii lan lay wut fii. donc su ne il est le comprends. ah mais mais bien entendu ma euh, Ousmane Sonko ak Déthié Fall ànd nañu je pense que loolu ñëpp mun nañ koo comprendre mhm. li nit ñu mënul comprendre mooy Déthié mu ngi ci liste boo xamante ni Barthélémy Diaz moo ko jiite. c'est ça le problème maintenant nag il a fallu beaucoup de courage pour que mu accepter jóge fu mu nekkoon. accepter qu'il s'est trompé. Euh, euh, mais voilà accepter qu'il s'est trompé ànd ak ñoo xamante ni warul ànd ak ñoom. Barthélemy mosul ànd ak kii quoi mosul ànd ak Déthié Fall ñuy ànd ak Ousmane Sonko quoi. non tu veux dire bokkul. les postures ne sont pas les mêmes tête de liste. non waxuñu tête de liste. ànd bi tête de liste la wax. non seulement nekkul tête de liste. mais warutoon na après. et à l'époque xam nga li ma lay wax. non xam nga li ma lay wax. non dama ne. oui may la sàmm bi dem màggale. Thierno Bocoum n'allait pas accepter que Barthélemy di ko. s'il vous plaît s'il vous plaît non ça c'est ça. justement sax affaire liste yooyu ñuy wax. ba fi problème mu liste yi posé woo en deux mille vingt deux. Ousmane Sonko defi sorti ba tudd Barthélemy Dias lan la ko wax yow doo leader. amoo loo wax Khalifa Sall la ñuy waxal. oui. loolu fàttewu leen ko. oui donc pour dire. kii sax ci permanence su ah. euh, Khalifa Sall bi. Ah, voilà très bien pour dire que Barthélemy Dias mënoon na ci ànd. mais dayoo bi ko waa sàmm sa. kaddu sàmm kaddu saaga mhm. jox kenn mosu ko koo jox te Déthié Fall am na euh, comment dire euh, euh, juum na dugg foofu jékki-jékki di waaj ndax day génnam du génn dégg Barthélémy Dias muy wax comme un chiffonnier dégg gis bu Bougane Gueye Dany muy comporté wu comme un gladiateur mais il va se poser la question man lan moo mu dugal ci coalition bi lan laa fi def jusqu'à présent bu génnee nag ne day dem fekk ji ñële xëy na ñi mu bàyyi dinañ ko wax traite ñu mën ko comprendre parce que bàyyi na leen fa mu dem. mais dans tous les ñi nga xamante ni seetlu nañu woon ni mu daan ànd ak Ousmane Sonko dañuy jàpp na rek lu compréhensible la tout simplement. Pape Sané il a corrigé une erreur bu mu defoon. il a corrigé une erreur. Moussa Wade je me dois d'abord mhm. wax naa lu bari bari ci kaw dëcc bi. tey daf ma woo. moom day waaw. ok ma ne ko dama feebar. mu ne ma non euh, boo gisee ma woo la grand dama la apprécier euh, suivre sa ñaari plateau yëpp te li nga wax je n'ai absolument rien à dire. Mm -hmm. bëgg naa la jox ay éléments d'appréciation. Mhm. ma ne ko dama feebar mu ne ma fan nga nekk ma waxoo ma ne ma sorewul lax fi ma nekk mu ñëw il m'a montré. sur son téléphone. maa mhm. ngi télé il m'écoute ñaari message à la date du octobre yu mu bind je citerai pas les